waxtu bi bu jotee la ñu jox leen seen dose matinale li yéen kay xëy di xëy waaye bi sa la bokk monsieur maire bu goxub Kumbam la mbaar na monsieur le maire bu Guédiawaye naka yow. yow gaa ngi nii rek naka yi tey. sant gox ba. gox ba ma nga fa. lépp nga lépp mat na daal. waaw gox ba waaw. ah. te nekk ci activité yeex waajal gi. waaw. ndax fi ñu jëm dafa laaj renfort. waaw waaw ñu ngi ci de. ñu ngi ci waaw waaw noonu la ñu ngi ci ñu ngi ci faaw ñu koy matale. ñu ngi ci nañu ana lu ana lu fa manqué. Taliya ñu ngi koy defar. loolu santé yi ndax am na. monsieur le maire école moom sëkk nañu ko. monsieur le man bu ma yëngal. xam naa waa Tëngéej ñu ngi naan maa mbay ku saytaane la ndax mi ngi bàyyi ay jàmbatam di li jëndi jàmbati waa géej waay. ñu xam naa ne man Tëngéej moom bëri na. géej waay de lañ fa war a dafa bari. Hmm? géej waay rek. Hmm. géej waay liñ fa war a dafa bari de. booloo koy maye de wax naa ko waree Sarr barki démb. ah nanu booloo kon. waaw. mbooloo mooy doole. ñu ngi nuyu suñu sponsor leader. kan la ci. Euh, suñu maam Abdoulaye Wade. maam Abdoulaye Wade Fara Wade Ndiak man ba ma jotee information bi dama ko xool nii rek ay rey jàpp ma. mu dem parce que maa xam naa ne du am. alkaali Massamba borom jam-jam ya sa gànjool. kenn du moom. miin autoroute à péage. moo ñu ko wanele. njëkk a wàcc AIBD. te pareewul moo moom la. miin jet gi kay mooy yéex a dikk. yéex a dikk maam doon ñu. kese. góor gi dayoo loogu ñu. waaw. <laughs> waaw ah, Pape Cheikh de dégg naa way boobu lañu ñu joxe tekki ba faw woyow dootuñu way lu toll noonu damay def ak moom seen jotaay mu dégg ne Aminata Tall dafa génne woon benn circulaire naan oto yi Ablaye Wade mayoon Serigne Seck yooyu naka dañ euh, leen ko ramas dañ ko war a jëlaat mu ne ma Chérif lan mooy oto Ablaye Wade seen jotaay mhm. seen jotaay boobu il faut ma tegaat ko boobu noonu waaw pour gën a wanaat tubaab yi kii mooy kan mu ne lan mooy oto dàbbaliwaat ko dina ci baax ah. tàmbaliwaat ko di. lan mooy oto. Hmm. lan mooy oto laa wax oto. nekkatul luxe sax. non mais attends moom portable yam nécessité la nécessité la. loo xam ne yow mënut gudd fan gudd fan gudd fan gudd fan ba def ak yow ñeent at jàpp juróomi at. Hmm. continuer ci état boobu déedéet. xanaa kay muy paan di kii ngay kii ngay. ngay defaraat waaw waaw. mënut yàgg yow ba am ñeent jàpp juróomi at. Hmm. Ah, lan mooy oto. doy na waat de. Ah. tubaab yi nga xam ne moos. genre waat dëgg yeeg xaddafi geeg yëpp sàkkal nañ leen pexe. Ah. sàkkal nañ leen pexe waaw bu ñu la mën fu ne nii bu ñu la mënul rey nii nii lañ lay def rek wala ñu soxlu la. am nañ la booleel. nii rek la ñuy def. di la tàggeeg di la tàggeeg di la def yu kenn xamul. nañ fi bàyyi maam booy moo gën. tàggeeku deewut de moom. lu ko waaye mën a sikkal day yërmande bi day ñëpp wax nañ ko. mi ngi ci waaw. cey moom kay. wute. <laughs> ma koy nuyu bu baax sa xarit Moussa Agir. waaw Moussa Agir dañuy teew na fa jagu jot moom mooy euh, jëwriñu daayira Akhlu Choc. waaw. xam na fi may waxee. waaw ah, moom waa choc yëpp maa ngi leen di nuyu. am ah, choc dafa kii moom Moussa ay baax. <laughs> ak a mën a joxe information ci toile sama xarit eh, ah, la baax na. Eh. Bas Mbacke Diatta maa ngi lay nuyu sama xarit boobu Bas Mbacke Diatta. PDS fële Géejawaay. ana ana ana Adjara Ndiaye Ndiong. Adjara Ayda Ndiong nañ ko delloo xaalis. nañ ko jox dafa yàgg de delloo xaalis. Euh, Tons Daouda Niang. waaw suñu papa Daouda Niang ñu ngi koy nuyu bu baax tuddal sori Euh, ki nga xam ne mooy président Bougane Gueye Dany. waaw dugg na dugg na mu ngi ci dugg na dugg na. moom ah, dugg na. Euh, euh, Sonko ah, Ousmane. dugg na dugg na Sonko dugg na. dugg na dugg na ah? waaw jarut laa laay chefal borom. déedéet duggul duggul. dugal ko rek fii kay majorité présidentielle kenn du fi dugg. le ministre des forces armées Sidiki Kaba duggul duggul du sponsor Sidiki Kaba. ki nga xam ne moom mooy ajaratu ngo Ngone Ndoye. mi ngi si biir fukki benn jeex ñaar yi. sponsor. ah mi ngi si. Ousmane Ndoye nag mi ngi fi wala dañ ko génnee. kan mooy Ousmane Ndoye napp mi. napp ma. kan mooy Ousmane Ndoye. dama juum xam nga Ousmane. ah Alioune Ndoye bi ñu doon wax boobu nga jàkkaarlool moom ak. déet kan Alioune Ndoye déet non non Alioune mu baax présidentiel fii kenn du fi dugg déedéet. Khalifa Babacar Sall. Khalifa Babacar Sall sponsor leader. Khalifa Sall mi ngi ci biir. Euh, Malick Gakou ñu ngi kaaj ba tey. non non ñu damay toog di xaar. te luñ kaaj nañ ko xeex. sama big day laa yor. Ah. ku dugg kay ku fàq transhumé dem ci Macky ma wàcceel. xarit taalibe nag. kan la si waaw Diop si waaw ba tey. Diop si mën nañ parce que waaw. Hmm. moom moom mën nañ koo baal rek bàyyi ko ci biir ba tey waaw. nañ ko hmm. bàyyi ci biir garaaw. borom bi bi nag maître Djibril Waar. kan déedéet duggul duggul. duggul duggul. moom mën na dugg. waaw waaw mu génnee yàgg na. non non non maa xool parce que fa la hmm. génnee. defar la. kan. Moustapha Diakhaté fa la génnee. <laughs> Mamadou Diop Decroix. déedéet non non duggul. dañuy lijjanti ay dossier. damay lijjanti lépp. Abdoulaye député bu uh, nu mu tudd ay waay ji la waaye damay waaj dee wala dama nekk Touba. borom bokk gis-gis. non non sama xarit. non non non. Baara Dolli. Baara Dolli duggagul eh, duggagul mën na dugg nag. duggagul duggagul. duggagul de. am na Idriss Seck génn. Ndaamal Kajoor anam. <laughs> Ah, moo newoon chef de l'opposition. waaw ñun ñëpp moo suñu chef bi. waaw léegi nag comme na ci ah. rek. waaw ajaratu. Ah, wàcc na ay dem mi ngi ci biir. laal yoon Aïssata Tall Sall wàcc na. ci suuf. daal pourtant moo nekk wàcc na. Malick Gakou ñu ngi toog di xaar. ñu ngi koy xool. ñu ngi koy xool léegi activistes yi la ñuy dugal. dinañ ko xool. ñoom Guy Marius Sagna. dinañ dinañ xool ñoom ñoom xurum xaax. parce que ñëpp aussi mënuñu dugg. waaw ah, dafay metti na ku ci ànd ak wàcc. rang de yi moom <laughs> ku ci transhumé dem ñu génnee la. de mais groupe WhatsApp bi suñu sponsor groupe WhatsApp bi. dañoo nekk mënoo nekk opposition nekk pouvoir mënoo bokk ci groupe bee bokk ci groupe dama lay retiré Idriss Seck retiré Aïssata Tall Sall retiré gàkku moom dama ne ko bul defati audio mi ci groupe bi ba tey nag léegi day fii rek day fii bu mu commenté te bu mu déglu sax bu mu déglu suñuy audio <laughs> ñu koy nuyu Ba eh, Malick Gadiaga Bamba Fall Malick Gadiaga mi ñu seetaan ah. Bamba non non non Malick Gadiaga génn na. dégg nga Malick Gadiaga nga. kenn. léegi Idrissa bokk. lii sax bu mu ko moo deet. waaw Bamba Fall kay dugg na. Bamba Fall Barthélémy Dias waaw ñoom ñëpp ñu ngi Bamba partout Bamba ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. ah kon voilà Bougane Gueye Dany mi ngi ci biir. <laughs> moom daal mi ngi ci biir moom kay ku taxaw dëggal sa bopp. <laughs> on te maintient dans le groupe. <laughs> Ah, voilà bu jékki-jékki ñu ne signal nañu euh, euh, euh, Bougane lan la ñuy wax. génne ko ah Bougane même du génne ay yàgg. na dem te Medina ba léegi mi ngi bëgg a dugg. waaye na dem ku ci dem fekk ma ki ma retiré la ci groupe bi. groupe WhatsApp bi ñun ñoo ko moom moom koy xanaa siy état nañ dem. ayca termine yéen a kaay monsieur le maire ñëw ak ñun ci ñetti junni ci ay sénégalais. Mm-hmm. yoo xam ne ñoo yegg si ci géeju Espagne ya ñetti junni mu nekk lu doy waar. ñetti junni. seize lañu. Mm-hmm. seize ay sénégalais lañ. Mm-hmm. mais monsieur li ci doy waar mooy juróomi téeméer ci ay doomu se ay doo ay doomu adama yoo xam ne kon dañoo dee. xam nga ñaataay. génnee ci ndox mi xam nga ndox moom lu fa bokkul da koy génne ñaari téeméer ci ay néew ñoo génn ci ñaari fan ñaari téeméer ci deux cent cadavres en quarante huit heures deux cent mais day day tamit di en président association sénégalaise yu nekk ci ci ci ci des sénégalais yu nekk te îles Canaries yooyu nee na espagnol yi ci boppam fi mu nekk nii nee nañu bu mas mi jeexee dañoo fas yéene defante ak ñoom de ah waaw mais non attends. Euh, non mais ba pare silence coupable. bi ñoom makki Sall nekkee moo jaaxal ñu. moo jaaxal ñëpp. heureusement xaalis si loolu ñu commencé wax. kenn xamul lii lan la dégg parce que ca jamono jooju. Benno Bokk Yaakaar. astafurlah Benno autour du gâteau. Euh, toog Benno autour du gâteau. dañoo Benno di tong-tongee suñu alal ji. Eh, eh. Macky Sall yoon wii Ablaye Wade jëloon. waaw mais Macky Sall moom la jël. piège yi muy gas yëpp moom moo ciy mujj dugg. lu leer la ah waaye yow ñoo xam ne ñoom ñoo ko jàppoon di ko xaxar genre Moussa Sy genre Aïssata Tall Sall di ko attaque mais ñooñu tey ñoom ñoo ñëw ànd ak moom dafa leer de kenn xamul lii ndaw daw ñu ci dara dégg nga loolu mhm. yow ci jamono ji ngay manœuvrer di politique yow sa dëkk ndox sax mënuñu ko am ndox muñ naan jàmmalaay Grand Yoff déclenché nañ les émeutes de loo mhm. mi ngi nii mi ngi nii ndox ci boppam dalaa të dégg Vox Populi ñëw ak ñun ci Augustin Senghor fédération sénégalaise bu football. samp na leen dem. yow ma ni jéemal góorgóorlu gañeel ñu coupe d'Afrique balaa ngaa dem kaaf. moo gën ñëwal fii. loolooy dëkk ah, ah, ah. beneen beneen gaal lakkati na. ak juróom fukk ñoo ca nekkoon juróom ñaar fukk ñoo ca rëcc. ñoo ca rëcc. fais le calcul. na wax de. defal calcul bi dégg nga assemblée nationale moom def nañu calcul gi ci wàllum inondation mhm. gestion baa ngi ni benn milliard huit cent moom lañ jàpp ci exercice deux mille vingt ndakaaru moom daanaka koppar gi moom moo koy wan. sept cent soixante deux millions et quatre. lii kenn xamul lan la. dégg nga loolu source a nañu gis nga coowal dengale. Mhm. Macky Sall solution provisoire la jëloon. bàyyi baykat yi bay ci seenu tool en attendant ñuy seet solution waaye c'est le statu mu ngi nii de mbir mi demul dikkul de avancé wul de. avancé wul de. waaw réew mi quotidien ñëw ak ñun ci teral njëkke teral nijaay ah, teral goro bu ñu demee nag ba muy yàqum sëy yi nañ ci wax waaw mariage yi léegi looloo koy yàq mm-hmm. l'observateur nañu mu ngi nii Idrissa Seck nag ndaamal Kajoor le le le mi mi doon def nit ña nag lañ ko def dafa ne mi ngi nii <laughs> bi ku ko tooyal ba mu ko tooyal idée tooyal mi mi mission de vérification la yónni conseil économique social et environnemental. pour ñu ko. pour ñu dem lëmbat xool yorinu Mimi ba Idrissa Seck dañ ko waroon a installé. aj na ko ba jëmi jamono. waaw ah. day daamal Kajoor mi fi mu jëm ak Mimi. Mimi de nee na moom comme seetu. deful dara. dégg lii quotidien ñëw ak ñun ci. Mhm. waa rajo France internationale yi nga xam ni dañoo yëgle woon ne Ablaye Wade làqu na. ñoo fi tàggee woon de. laa yéen a bon. dañoo am jot sax yéen. dañoo am dalal na xel yi de. wallaahi barki yonent bi mhm. ni ko coro saar rek maa ne coro saar alkaali samba borom jam-jam ya ca gànjool kenn du yow ba fa coro saar barki yonent bi da di doomi buur di buur ko <laughs> barki rasulaay mi ngi nii de moo tax journal bii di direct news ne xam nga légèreté hmm. di waa RFI def dafa yomb quoi laaj ma fan la ñu sukkandiku uh-huh. ba wax ne Ablaye Wade daa dee dafa yéeme de ay colonel médecin yoo xam ne jaabante biir kër Ablaye Wade di dugg di génn di dugg di génn rek ñu ne teel ma rajax ñoo hmm? gis ay docteur di dugg ci biir kër di génn rek nit ñëppay faju kese waaw rek nga daal di koy xamle nga daal di tàgg waaw waaw journal bi ne Abdoulaye Wade day moo ñiital ndaw yi de yow nag démocratie bi moo ko xàll xar ko moo tax di ku coro saar gis nga yow dañ lay ñaanal yàlla téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ci ay at. yéen waaye mooy mooy dànk seen yow sa dund gi yow yow xataloo kenn waaye. moo xefee mooy dànk seen i de waaye ma ni eh. ñim fi waxoon ne ñoom ñii di ma yéene dee naan góor gi dee na. wallaahi wallaahi góor gi amul lu mu dee. góor gi dee na suul nañ ko. ba mu ko drapeau bi mais waa dina leen yéen ñëpp maa leen di suul bëgguma tudd tur. eh wuy ma yéeral ñi fi dee. te lim te lim gi mi ngi def. yéeral ñi fi dee. cee maam. dégg nga loolu enquête yéen kaay nañu xoolal guddi gu bët setagul bi. Mm-hmm. lëndëm lëndëm am na. ci casting bu bees bi. Mm. stratégie yu Macky Sall bees bi. lii xaw ma aay la xaw ma jur rey infanticide. yéeme na de ma kee ngay rey waa këram. récupérer ay opposants yoo xam ne waaye opposition dafa métti. waaw dafa métti journal nee na opposition dafa métti. waaye professeur Moussa Diaw nee na président Macky Sall ab yoon la ubbi ngir troisième mandat ba. dafa leer. waa waaw baax na <laughs> du ko fi amee de. critique yéen a kaay ñëw ñun ci waaye est-ce que nekkul ne seconde vague day waaj a am. vague bu lu mu doon. gis nga deuxième vague corona bi ni mu amee France. Hmm. deuxième vague. deuxième vague euh, kii bi. transhumance euh, transhumance. Macky da ko waxoon de Macky waxoon ne ne ne gis nga noon bi ci boppam du ma ko may jàmm taajaañal ko dox ci kawam dóor mu wàcc Macky ne ma ci yem de. Hmm. barki yonent bi xam taxul ma leen rendi teret bañ dee danaa leen ruube jaxase leen dugg seen i rang féewale leen tas leen diviser leen ba pare nag jël ci ay personnalité ni siri xëcc daal di yóbbu. kookoy Macky kii gi de comme ndaw yi di jël gaal yi. waaye ma ne déggoo ma de déggoo laas. ñu professeur Issa digganteem ak waa PUR a jeex na. day créé parti waaye ay jege ñaale nee nañ ci Macky la jëm. Ah. <laughs> moom it day yekkale non man damay mujjut. moom it day yekkale. man lii <laughs> dégg le quotidien yéen a ñëw ñun ci yorinu Covid 19 ji lee Abdoulaye Diouf Sarr day. am na ndam de. moom waaw waaw wax fa ndam de. nañ ko ko nangul. waaw la témoin mooy yéene kaa ñëw ak ñun ci espagnol yi gis nga boo sàgganee nag. Mm. sénégalais yi fa dem espagnol yi danañ leen rey gis nga li ma la doon wax. bis bu ne ñaari téeméer ci ay néew ñoo fay rob armée lu jullit ya fees na léegi dañuy gas jël ñu bëri suul ca biir waaw loo ëpp ñeenti junni ci ay africain instant bi ñu ngi leen denc kon ci seen centre de rétention yi. ñu ngi leen Eh, tubaab yi xam lu leen gën a na xari léegi booy africain dañ ci boole sàcc ah agressé viol mi ngi nii ah ñenn nañu kat bu ñu demee dañuy yóbbaale seen i jikko dañuy bàyyi seen jikko de bu ñuy dem am na ñoo xam ne dañuy yóbbaale seen jikko xamul lii lan la léegi ko yéene kaay ñëw ak ñun ci Ndeye ak Marème Ndiaye cent quarante cinq millions la ñu wut oh. ay jumelle la ñu ndeysaan siamoise yaa ngi nii gis nga léegi kon na ne de Ablaye Wade da ngi nii indi ku coro saar évidence seeni kaay ñëw ak ñun ci port autonome de Dakar ak transitaires yi. Mhm. Adrien nee na li ñu bëgg daal mooy ab colonelu douane ca commande ba. Aly Ngouille Ndiaye nag li ko sànq ak yooyu moom daal la fi journal bi def libération yéene kaay ñëw ak ñun ci gaal gi nga xam ne lakkati na encore ca Cap Vert. doy na waar mooy xibaar bu mujj kenn ah. xibaar bu mujj bi de. non <laughs> fay man barki Rasulullah ci gaal yi. Ah. dee itam ci gaal yi. waaw lii lan la. maama nekk nii waa RFI ñoo nekk nii doon joxe seen i xibaar. non waa RFI waa RFI ngi nii. cee maam de mi ngi taxaw kenn ko Coro Saara gi di taxaw. barke leen kenn du maam Abdou ah, ah, maam moom it ca kaw. ah Diouf la di. c'est ça moo naan ah madame. Diouf la fa ngi nii. <laughs> Wade. ba tey baax na. waa baax na tàggee koo xam ne mu ngi jàkkaarloo yow. barke Rasulullah ñii ñëpp tàggee nañ leen. fii rek la yàlla baax na. aca ah Cheikh Ahmed Tidiane ñaan mu ngi lay nuyu bu baax sa tëngeej. mu ngi koy fay. Cheikh Ahmed Tidiane Niane sama xarit sama sëriñ. aca na décret bi wàcc. Ah, tey jàbban la. tey. Pape Cheikh salon Pape Cheikh sa tëngeej tamit ñoo may wat ñu ngi may ñu ngi ñuy seetaan. ah waaw Pape Cheikh Pape Cheikh Pape Ndiaye Cheikh Cheikh <laughs> tey jàbban la tey koy signal. kan. tey kan ngay signal. tey. Hmm. tey kay. moom daal léegi léegi koy wàccee rek. wala ku ñu aj. Macky daal na yor décret di signé. ah ñun ñu yor suñu. décret di signé. groupe whatsapp di retiré it. ku mu yéegal ñu wàccee la. <laughs> pour 7h30 bi ku fi transimé ñun moom duñ fi nekk sax di neexal xam nga opposition bi sax dañ nekk di leen jéem a neexal ak yooyu. Euh. ñoom dañuy neexalante seen biir. dana yekkale. waaw. waaye day yekkale non 7h30 amul yekk amul neexale. Hmm. fii signé. crib di rooti. ah signé <laughs> rooti. rooti. am na ñoo xam ne boo leen roccee seen daanu day du du gaaw de. ma ne la rocci rek. loolu moom doy na waar di. groupe whatsapp bi kay ku dem ci makki ñu retiré nit dana yor benn kaddu waaye benn dëkk ñaari kaddu rek. day metti nag. ba ko doon nitu kii. doon ciment benn tooy benn yoon. waaye yow ku fi dem ñu retiré la. nii nii nii nii ñun moom suñ groupe bi dafa neex. fii c'est un train de vie. metti nag groupe bi ñi fi nekk ñëpp opposition dafa metti dafa metti nag dafa metti mais eh opposant yaa ngi fi. Hmm. ñi gaa yaa ngi fi. ku fi dem ci Macky ñu retiré la. rocc rocc ñi taxaw di xaar moo bari. terereet diw vous a retiré. te fii moom nekkul ay numéro numéro yu kenn xamul man maa lay retiré man am <laughs> maa lay retiré. waaje leen de opération raxas. opération retiré le monsieur le maire bu Guédiawaye di def jamono ji euh, ci matinal bi bari ngeen lool ñoom madame Fall RCD ñu koy nuyu bu baax waaw Pape Cheikh euh, Gazelle foofee nga xam ne sa tëngeej ñoo